Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Nisan Peygamber'in söylediği sanırım sanırım. Samsun'un yanı vardı. Samsun'un Samsun'un başını var. Yani yani yani yani yok diyorum. Tekrar bir şey yaptım. Gidiyorum arkadaşlarım. Gidiyorum nuyu waa kër sëñ Babacar Si bu baax a baax ak waa kër Alane di gërëm dawati ñu ñëw ñëw bu Kunte Njaasaan dawati soxna sax sax yëpp ñu ngi nuyu ko donc ñu suñu dëkk waa Casamance waa Sédhiou waa Mafana buñ jëlee Kopaw suñu sang ñëpp waa Saalum Saalum ñu sant boo dina sama supporter yi ñu fi toog suba ba léegi amaloon jàmm mais nee na yàlla yàlla ñoo ñu jàmm bala ko ñu aussi waa Waalo waa Sèye waa Thiénaba ñëpp maa ngi leen di sant xamal na leen képp ku fi tàkk ngeen nga nekk mbër Balla moo def dara man nag direct Géejawaay mooy tax sama ak Pape Seck ak Pape Mamadou Fall mi nga fi toog ak Amndaaw bu baax and it's like you can be pure, you can be proud, you can be proud. We are not going to see it about you. The game's not the current door of Matali Mizla. Diyorum hepsini daha bırakıp Kur'an yapmayı sen bildi. Zaten ama Şeyh Ömer Fethi'den akşamı başını yapmayı Ama sen de bunu da sana bırakın. Dedim hep bir ay. ma ci topp mooy lenn dëgg neex na yàlla suñu borom sama supporter yi mosu ñoo gëm sax un heure naan asmaa moom tey seen lañ gëm te suñu borom dinañ ko dugal. mention spéciale ki may sant di bu Balla Gaye nekkee ci forme bu Balla nekkee. état bu baax Balla Gaye di ñëwaat à grâce à Aziz bi maa bëgg ngeen tàcc loxo bu baax a baax a baax na di ko nekk te bu may taxaw fi ñëw sax xool damay koy sant bu baax di ko gërëm maa ngi képp ñaanal ko yàlla yow li gën a may yow kon nag yéen ñii yéen a tax mu def nañ ñaan yàlla yàlla ñu yàlla may ndam te incha allah ñu nekk yàlla suñu borom yàlla ñu ñu ko doon baax na dañoo seetlu bi nga jógee voyage ak léegi yow ak sa adversaire yëpp dañoo am même seetlu ci yéen mooy seen état de forme maanaam changement am ci yéen seen ay poids dafa wàññeeku loolu la ko waral décision ngeen bëgg a jël ci bis bi waaye lan moo waral ngeen def ni le treize waaw xam nga man dama jógee rek man itam daal tamit ay sac yu di gërëm suñu papa bi Fafa Fall ñu tey moo xamante ne laa amal France ñu fi vraiment mu liggéey man ak une chasse boo xamante ni yaay tout complet donc man liggéey bi bàyyiwuma sama xel ni sax wàññi naa xam naa ne daal liggéey naa ba sant sama te alhamdulilah rabbil alamin loolu moom importance alhamdulilah combat bi bëgg na yàlla mooy may yàlla mu am yàlla mu am ndam yàlla nañu ko may. ndegam neexoon yàlla mu ngi dépendre ci moom bu bëggee mu yéex mu yéex bu bëggee mu gaaw gaaw waaye mu combat bi nekk man Balla Gaye numéro 2 naa ko def ba yàlla may ndam mu xeex ba yàlla may ndam yow sa adversaire mu ngi xeeñ na interpellé ci benn question bu mu jàppale que da ngeen koy sot ndax gis nañu à seen coach mu ngi xeeñ démb gis nañu seen bokk na ci ñu ko waroon ñëw fekk si la mu ne loolu lépp intéressé ci buntu ko combat bi dafa diis ci ñaar ba war a tax ñu war a mën a wut ñu mel feneen. waaw xam nga ku xam Balla Gaye mën a jóg pourtant am na benn ngóor bu mag bu taxaw ñëpp taxaw ñëpp mu ne am na ku ma si porté pourtant kenn ku nekk yaa moom sa xel yaa xam koo ci dugal nga dugal ko am na loo xamante ne dama ci gannaaw am naa SF am naa encore li ma def moom incha allah Modou Lo bu fekkee ne du ko bu gën a loolu laa ko Aliou ñu daan ñoom ay sant baax ak Omar Lo ak ñu dikkee ñaar bu baax a baax ñoom ay sant baax su xeexee ma duma ko su bëree ma daan ko tuus nga ko am nga xam yoon xam nga nit moom da ngay ñaan rek mooy sama bopp yàlla mooy ndam musique moom moo ko koy def mais li gën a am opportunité mooy nga liggéey bu taxaw dégg sa bopp xam nga liggéey xam nga ne capable ak na capable te du ma vingt millions liggéey di ñaan yàlla gërëm suma frère suma xarit Ama Baldé maa koy sant bu baax di gërëm képp kuy sëriñ nekk Sénégal nekk Ndamut nekk Saloum maa ngi sant di gërëm di gërëm Mbaye Diop Moussa Fall Diop Talla Meng Modou Fall ak suñu bi nga xamante ne moom la ñu jàppale ak suñu père Mbaye bi doomu Dakar Leewtoo point com fan yii ci face à face bi ngeen def monument de la Renaissance dañoo gis nga xam ne nii mooy Modou Lo nga taxaw mu taxaw mu door la épaule nga xaw a calcul nit ñu bëri yaakaar ne mu def la bu doole benn clés mooy nee na ko ñu xeex 15 minutes te Modou Lo yow gëmoo lool da ngay naxaate ndax bu loolu amee yow doo ci génn ndax bu la doole épaule def la bu doole ba tax nga calcul wala xeex boobu mu wax ne gëmoo ko li muy wax dëgg la. opportunité yàlla dañ jëm ay opportunité moom la lu ma opportunité ci àdduna incha allah seen dañ leen liggéey ba xam ne dama liggéey xam nga nit taxaw man ba ma yow mi kii sax mën nañu ma bàyyi sama moom amul problème loolu amul sens loolu rek la mais moom moo la gën a xam ne li ma koy wax rek ay supporter la ñoo ma yor mais moom yëpp feex bi ngay wax mën na bu ñu feex boo duggee mënoo suuf te li ma la wax xam naa bu fekkee ma dugg rek dëgg la daal mënoo mënul fees Babacar mënoo mënul fees mënoo mënul fees bu xeexee ma dugg ko bu dëgg la daal man ay champion de monde France laa demoon moom Espagne la demoon man ay champion de monde la ñu ne coupe du monde bi paase jël ma ko de France man man ay champion de monde waaw balaa ñoom ñoo ñu gis ne waaw ñu gis ne tout waaw mu mel ni sa adversaire tout le temps rek si combat bi ñu tudd ku ma mënti bërëb ñu ne damay dox lu ambulance wane sama supporter maa ngi fi liggéey naa lu tax ma xapli liggéey naa lu tax ma toog bi dee liggéey naa lu tax sama supporter gëm kon nag damay gëm sama mais képp ku may bëri dama lay respecté jox la cër bi ak aadama ngëm franchement yéen ñëpp mën nañu gërëm di leen sant sa amitié. ñoo fa mujjee bëre daanoo sa adversaire toogoo ci kawam. Sa Thiès bu mu fa mujjee bëre dañ koo daan yow laay waxal yow bis boobu le treize. sa amitié première victoire. waa Farba. waa Géejawaay. waa Notaire waa Fidni. waa Laas. waa Jubóo waa Jaxaay képp kuy Balla Balla yi maa ngi leen di woo ci bis bi Balla Gaye kii ñu ëllëg maa leen di ci bis bi Omar Gueye Kër Ndiak Masata maa ngi leen bëgg di bëgg yëpp jël waa Golf ma yoroo di ñaan nag yàlla ñu yàlla may ndam yàlla ñu yàlla may ndam te yàlla nañu may ndam incha allah di leen wax ne jërëjëf jërëjëf ndax toogaay bi yàgg na taxawaay bi yàgg na. presse maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yéen a xam ne bëgg yéen a ko am. waaye seetaan ci TNT.